nga ki dafa dafa émission ngeen kay jox. Mm-hmm. da am. wuy ma moom mu kaa defal boppam. am na ko di live. di wax. xam nga franchement dama koy jox lenge yi mais léegi-léegi may. waaw dagg lenge ci digg bi. ci bien habillé vous êtes bien habillé <laughs> macha allah. merci beaucoup jërëjëf ay te ñu ñëw ci ci ci. waaw waaw ñu dégg administratif yow kii ah. kii du tax. Ousmane fa la jëmal yow waay waay lu ma wax lu ma. kii wax na li mu di saytu di saytu DG. saytu kan. ko xale yi ne naa la ko waaw port bato bu yàgg bi ñu rénové tapp tappal ko ñëw indi ko présenté ko comme neuf waaw waaw yor yor yor yor yor nga yor yor tey Ousmane Sonko dem fa ndee dama ko fa non nga port bu Dakar la lay ah, wax building la Ousmane ndax yéen nga coow yëguma ko yoroo yor yor xoolaguma journaux yi xaaral léegi dara naqari xoolaguma yaxasa ubbil ko ubbil ko ko ko ko déedéet ubbi jukkil la ko yor yor xoolaguma ko léegi xaaral ma la ah gis na ko yor yor mhm. népotisme abus pouvoir emploi fictif recrutement sauvage mhm. marché de gré à prime colossale accordée à des Mm-hmm. et surfacturation en vingt mois Mountaga Sy a recruté plus de mille agents originaires du Fouta. bul taxaw de Mountaga peneen. Mm-hmm. des voitures quatre x 4 distribuées à l'appel. des primes de dix millions octroyées chaque semestre. Mm-hmm. à des proches du DG. ñu tegaat ci location injustifiée des bâtiments. de Saint-Michel à hauteur de plus de quarante millions de francs CFA par mois. ba mujj nag moom la la nabu jox sànq mooy bateau yu ñuy tapp tappal. Mhm. mais bu bees la fekk beesul mooy le nouveau bateau. Mhm. Euh, Babacar euh, Boubacar Justin Ndiaye ak kii le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre loolu barki Dembo Ndiaye la. Mhm. ah euh, est une vieille chaloupe. repente et présentée comme neuve. waaw te te te kii di Mountaga Sy da doon def. force waaw lii la rek passation de service bi muy am. bato bi dañ koo tegoon. service technique bi bi ñu defee saytu xam ne bato bi baaxul. Hmm. te mën na def pire que le bateau du la hmm. ñu ne nañ ko fa teg parce que du bato bu bu bees dañ ko retapé ñëw présenté ko comme bato bu bees. ñu ne bato bi du daw bi passation de service di am ci ministre bu yees bi. Hmm. Euh, mu ne nañu ko nañu ko nañu ko bàyyi mu daal di daw euh, ginnaaw. Euh, bateau Casamance bi mooy bi muy daw fan yële nañ ko bàyyi mu dawaale pour faire genre daal. te bee sa taxawaat na nag pour moom. alors. daa mel ni Massa Seck Massa. Massa. <laughs> Euh, <laughs> j'ai pas envie de rigoler. je comprends ta douleur. mais Massa rek euh, yeewuwaaleel jooy nañ ba noppi. lenn mën a nekk. oui. kilifa bi si mënut a gaa nu mu kaa nuyu. Mhm. ca ami ca apix lañ ko daan séen. Mhm. nu mu kaa ziar ba baax lenn rek dafa mën a am. Mhm. ban heure jot nii. 11h24 11h25 11h25. midi. allah information yi tas ñu ne Mountaga Sy assigné na Serigne Saliou Gueye yor yor sunu xarit bi Serigne Saliou. Mhm. looloo mën a ne. waa il a 13h président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko ca biir conseil des ministres ba. Mhm. waxtaan nañu jël nañu décision ñaar. Mhm. benn bi na lii leer bi ci des wàcce nañ ko fa la ma yem a ne mm. waaw ndax man am na yu ma soof yoo xam ne man man <laughs> aw ma ci avis mais mais mais mais mais lii Pa lii lii lii c'est-à-dire a yokk waaw ñii la ñu defoon poste cest ko def kilifa bi si ne ñëw laa la moom laa la bëgg a wax ma yàlla baal am na loo xam ne dañ ciy bañ a yegg sax mais lii lii jekkut am na président Macky Sall dafay nekkoon premier ministre ci jamono lii di xew nii ñu ngi wax ci ñii mais président Macky Sall bi fi nekkee premier ministre lii dañ ko ko jiiñoo nekk ba mu ñëwee ba ne ba mu ñëwee nekk PM lépp lu tax ci moom ni mu ko defee bi mu nekkee président lu tax ci moom dañ cee profité ñii am salaire fii ñii am lii fii ci fonction publique bato bi bi muy bees xam nga c'était un janvier waaw bi soo soog a ñëw le président Sall dafa bañoon ne du ko inauguré xam na li ci nekkoon xam li ci nekkoon waaw léegi comme nag kilifa yi muus nañu ñoom ba woote uddi de lépp du capital humain ak la ca des. waaw na ma xool li ci des na gis nga lii pour man sax. du sax mbiru chef d'état PM xam mbiru kan la Ousmane Diagne bi ngaa tudd kilifa bi. Ah. ministre de la justice c'est à lui de parce que benn moment aussi. xam nga yore peuple. yow ñii ku leen fi tegaatoon ay. <laughs> bal dem bal dem bal dem aw. waaw baal ñu aw eh faajim waaw baal ñu. dem tudd awee. Eh. ba ci <laughs> ma bokkam lebu bal dem waay. waa sekk sama waa ma bokkam bal dem waay. bal dem bal dem bal dem bal dem. ba ngoon. nga gudd fan ñëpp yàlla nga gudd fan ñëpp yàlla nga gudd fan. yow mm-hmm. li nga def ministre daf la war a jël conseil nga ne ci wetam. Mm-hmm. bu ko neexee mu utal la bureau bu ko mu neex loolu de la Pape Touré wax ca Belgique dëgg ñi am expertise am xam-xam ci mbir ni leen mm-hmm. use ñu wax li xew mu nekk un profit liggéey bi nga yore. ñoo far ci bopp. ñoo far ñoo far ñoo far waaw ok moom yëf la moom yëf la. mais mu ne. lan bëggoon doon. waaw c'est que Fass euh, li mu wax dafa am solo lii lépp boo leen mm-hmm. am. Mm. maanaam la clientèle politique. moo waral lii lépp xam nga CDG yi ñuy wax nii. Mm-hmm. ñoom ñooy financer les activités wu parti bu APR ak Macky buy déplacé wu bu bëggee xaalis bu ko jabaram soxlee DG yi ñoom ñoo leen koy jox. te loolu c'est la triste réalité kenn mënu ko dindi xam nga mënoo leen jël l'argent du contribuable sénégalais di ko pasar pasare nii nga gis Sénégal ni gars yi di dóoree ni gars yi di sàccee càcc gi dafa ñaaw man benn waaye wax na ma prison mu ne ma moom ne moom moom ko nettali mhm. mu ne ma gars yi buñ ñëwee di leen auditer duñ fa fekk dara ma ne ko tax mu ne ma gis nga congélateur yi waa ji moom nga wax de moom politicien la prison laa ko fekk mhm. nee na congélateur la ñuy jënd def si poudre poudre xale yi nee na gas seen mooy talc waaw gas seen gas seen gas seen saal ba mu rafet def ko ci def ci liyaar yi karole waat ko ndànk léegi nag génn si benn quantité boo xam ne moom la ñuy dépensé bu ñu soxlewaatee yëkkiwaat karo yi laal tëjaat ko ndànk barke alxuraanul karimul kitaab ki ma ko wax c'est un grand politicien boo xam ne Macky Sall moo ko jàppoon mu nekk prison ma fekk foofu moom ñu waxtaan ba séq waxtaanu àdduna mu ne ba gars yi du ñu fekk dara ci ñun xaalis bi gas nañ ko suul nañ ko donc kon man mënuma comprendre. ku suul rek ñu sulli nañ sulli lépp. waaw léegi nag moo tax ma ne. nekk ci prison yi soxla nañ maanaam pour l'instant dañuy dañuy bàyyi justice def liggéeyam convenablement. oui mais man damay wax la jeunesse du Sénégal la jeunesse de mon pays. bu ñu leen mayee delee trois mois quatre mois li ñu sàcc alalu réew mi génnewuñu ko dem leen seen kër. ngeen mhm. jël li ngeen moom c'est tout. dem leen song seeni kër ngeen jël seen xaalis yéen ko moom yéen. Ah, déedéet ëpp naa def ëpp naa def ëpp naa nañu bàyyi ñi ko war a lijjanti dañ ko lijjanti. voilà nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey mais mais Ousmane liñ dafa bëri. waaw léegi ñi ko war a lijjanti daañu ko mais toog muy toog muy dox toog muy dox la bokk. waaw ah, mais bu ñi ko war a lijjanti dañ ko lijjanti. dinañ am na am na it lu ma waxoon ci ci tarixa yi gars yi bëri xaaj ma xere mhm. mais boo leen ma mayee occasion ma ratifié wu. Ah, waaw ayca dama wax ne diine ji dafa pëcc xoo dafa bëri pëcc xoo Sénégal. xam nga looloo waraloon benn waaye ne day woote yonent ba tëddee fukki xale bañ jàpp ko mi ngi prison Thiès te kooku tarixa la doon woote. maanaam Serigne Touba ba mu nekkee Mali jàng histoire si ngay xam ne Serigne Touba mii du ko ndaw maam El Hadj Malick du ko ndaw. waaw Boukounta Ndiassane du ñooñu ay nitu yàlla lañ loo xam ne nii seen i mbir di doxee ngay xam ne ñi sanc lii nekkuñu woon di nelaw hmm. mais dama ne nguur gi tarixa yi dañ leen